waaw waaw mais dama di ziar si suñu commune rek ñu koy seet si yaa ma gën a xam Sonko moo fi ne suñu fidélité suñu engagement na joxe ndigal rek na joxe ndigal rek ndigal rek xam na ni bokku ci woon parce que ñu dañ doon génn gannaaw moo xew lan moo xew lan moo xew gerte gerte jot na jot na jot na si kaw liberté Macky Sall di nga xaar amul leneen bay ki sëñ Bamba barki yàlla xaw ma sax lu ñuy wax nii ma dama doon génn rek dañ doon def micro trottoir foofu yàlla ñu tombé ci. mais grand fu ngeen jëm précis. amul leneen daal di fay gungoo ana Sonko. mu bi Sonko ana mu na jege waa na ñëw na ñëw. waa Lom jaar naa la. grand bi may wax ak grand bi. salaamaaleykum. na ngeen ma tuuti rek ma wax ak lay taxaw fii lay taxaw ay ci ñu dem dañ doon génn nii micro trottoir lañ doon def foofu yàlla ñu tombé ci donc c'est une occasion la on va on va essayer de tenter loolu noonu lour nanga mu grand bi du may ma wax ak grand bi ñoom de en ont rien à foutre xaw ma nag jëm man naa ngi naan sama café yi dem rek Sénégal ñii lay topp ci lii yàlla nañu la bàyyeeg jàmm maa ko ñaan man Néné juuf Sonko ñii lay topp ci ay plainte yàlla nañ la bàyyi maa ko ñaan man sonal nañ la nañ la bàyyi waaye ñun beeg rek ñun Ousmane ku sel ki suñu bureau laa toog di nalaw nekk heure pause ñu woo ma ne ma sawaay mu waa ñu sa waajaa ngi ne ci wetu fédération ma génn taal sama scooter je suis le coordonnateur des jeunes de Pastef à Diamaguène Sicap Mbao kii dañ ko wóolu kii ku ko nara laal laal ñu barke Rasulullaay Casamance la booy Casamance la Casamance la juddoo foofu laa yoroo liggéey moo ma indi fii liggéey ah te Sonko sama président la 100 pour cent day wàcc wala. ah taalal taalal. daa yëg. daa yëg daa yëg. non dañuy da. waaw arrière la. kenn mënu si dara moo fi ne yàlla moo ko def kenn mënu si dara waaw waaw te fii moom xoolal ba 2024 rek lépp ne leer gasta gasta. waaw xam nga moom jeunesse jeunesse bi jeunesse bi waaw rek jeunesse bi noo waaw ndax Sonko toppee wuñ ko alal lu dul programme buñ ko toppee at jub at jubal loolu rek lañ ko doppee fo mu ne nii àdduna bi yëpp noo ne waaw. lotissement jaay sama bakkan man na kii ko ba pare jox naa ko lépp. gerte gerte gi ñun moom lañ yaakaar 2024. wuy ma moom lañ yaakaar 2024 ndaw yëpp jox nañ ko réew ndaw yëpp jox nañ ko confiance. président Sonko président Sonko président Sonko Sonko yaakaaru Sénégal mooy noo gisee ndaw ñi ko topp macha allah yal na jël réew mi mu toog fi jàmm ak salaam mu jàppale suñu doom yi ñun amatuñu doole xale yi la ñu yaakaar ginnaaw yàlla ak yeneen bi yal na ko yàlla may réew mi ci darajay Nabil Moustapha kay jërëjëf Ana il jaar si ñun rey ñu ba pare nga soog ko éliminé. boo fi dee. yàlla na yàlla may ndam dégg nga Sonko rek affaire bi yàlla ko yàlla may. Sonko waaw. Inshallah. আচ্ছা আচ্ছা Meer koo fay. waaw meer waay. eh Moussa amul liggéey amul liggéey amul liggéey. Dramé moom comme may ma ñëw nii ah. Brésil. Brésil. ñu ngi ci ñu ngi ñu xoli rek ñu xoli ñu xoli ñu xoli ñu ci kaw ana sama caméraman bi ñu ci moom ñu ngi daw rek di dem xamuñ fuñ jëm waaye nañu daw rek bisu daw moom bu jotee ku taxaw doo gor. sama tànk ya ku taxaw doo ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. waaw ah, ñu ngi jëlee ziar wér la jël parce que sànq dañ doon génn ko ñu Sonko on a vu génn doon def euh, benn benn benn sortie bu ndaw rek ñu gisoon nag nga topp ci. Euh, bokk ci ñi xamante ni def naa bokk nañ ci jeunes yi joxe seen bakkan. Ah, <laughs> ba pare Sonko rek la ñuy topp. tey déjà sortie bi fan que ñu bëri nee nañ yëguñ ko woon. waaw man dama dugg ci dama xam dama bokk ci benn groupe groupe Pastef ci laa dugg nii di xool en général daal ma sax xool message waaw. gis gars yi ni Sonko day ñëw rek ma sangu cag cag laa dama gaari sama moto dem ñun Sonko rek la ñuy liggéey bi wallaay sàmbale client yaa ngi may woo ma jéggal nag bi mu génnee nga gis ko ci oto bi ñu bëri nañ dafa jeex yow non non non oh Sonko jàpp nañ si gàllaaj gars jàpp nañ ko si gàllaaj Sonko mi ma gis nii yo na gars yi jugaat nekk maam yi ñoo ngi leen di ñaan fan la dëkk Casamance Sonko ngir jëm Seydina Muhammad du gaadal si sa maam yi waa Casamance jàppale leen seen jeex na de Sonko général wul man mi ngi ne Sonko naan ma kii mooy Sonko man kii ma jox sama Sonko réew mi la jox bakkan suñu bakkan nga bu ñu koy jox dañ si ni waaye jox ko ponkal jox <laughs> waaw waaw gis naa lool gaa di non du dem Sonko non amul problème Sonko Sonko mais prix ku gis du ko jàpp Sonko jeex na Sonko di dara deseetu barke alxuraan képp Sonko dafa jeex billaay wallaay wa taala maa ngi ñaan nag képp fu waay mën di nekk Sonko nu mu tudd Ousmane Sonko Sonko gars yi tur bi Ousmane Sonko la ñu jàpp si waaw waaw waaw gars yi li si xaar ndax gars yi jàpp nañ ko si gàllaaj fi mu nii pël pël bu rëy jàpp nañ ko si gàllaaj de tukulóor yi jàpp nañ ko si gàllaaj waaw mu ñuy classé nu mu demee noonu neen tukulóor yi jàpp nañ ko si parce que dama xam gars yi Sonko dimbali leen waa Casamance non dafa billaahi wallaahi dafa ma gisee tey j'ai larme au cœur sama xol dafa dafa dafa dafa dafa tooy ma xool Sonko ma xam ne ma kii laa jox laa sama kii jox sama bakkan ndax te dëgg yàlla nag li ko Macky Sall bari na xam nga ni xelam dalul quoi billaahi parce que mbooloo mi Sonko nitu nit ñi la tey gars yi yëguñu ko mais euh, fu gars yi dégg mu da ngay gis borom moto di romb rek gars yi tourné waat waaye nee na la génnee rek topp ci loolu man dama bàyyi samay cag-cag samay client da dinañu ma mere te Sonko fayu ma mais yàlla bëgg rek man na def lu ko neex na laal ko ko neex sama yoon nekku si na laal ko ko neex man l'essentiel laalal Sonko ah, laal ko la neex waaye ñun buñ la laal yow nag yow buñ la laalul rek jaxam la laal de laale rek. léegi kii borom càq càq dañ ci doon waxtaan am na kenn ku ne moom càq-càq waaw nee na na gars yi gaaw profité ci occasion bi. Mhm. balaa yi di pare. waaw parce que bu paree ñoom dootuñu légitime. parce bi xam nañ ni xat-xatu dëkk bi. waaw wallaahi. moo tax ñoom ñu bàyyi leen ñu légal ci dëkk bi. waaw mais len leen daal laay wax. Sonko tamit bu ko kenn laal. waaye sama liir bu kenn laal. <laughs> <laughs> li la am de. <laughs> ça a été un plaisir dañu génnoon juste noonu doon doxantu def benn micro trottoir côté kër euh, Sonko on a mu génn askan bi topp ko ah jeex na non day jëlaat forme léegi donc toppoon nañ ci doon euh, jéem a jël réaction ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon topp Sonko Télé Sénégal la woon di leen jox dig daje ci yeneen programme jërëjëf